فها نحن في ديع شديد التراكم فها نحن في ديع ولم نرج فارجان يرنن سوى الله والهادي لسبل المكارم صدقت على ما قلت في عود ديننا kenn du sama turandoo gariban kama fil bariya ayra rahimi ilahiya fajal ahlana ala ghurbatin wa ahla ittiba'i sunnatin fit tarahumi na عليها بالنواجس مثل bi qaala fi isa yi nadratu moo tax yéen waa moxtafiina ak waa mustarshidina ak daayira yëpp bu leen neexeek bu leen naqaree da ngeen ni dem aljanna amin seydil haaji maalik nee bu ëllëgee ku topp ci sama ginnaaw lu sëmb bu tilim tilim kenn du la wañ moo tax ma ni ko Seydil Haaji Malik ku ànd moom du des gannaaw maam Seydil Haaji Malik su bàyyi mbay doon lii leer naa nangu naa takkale waaye bul dendale lii leer loxo yi ca kaw barke sëñ Babacar pas pasu bàyyi mbay doon def lii leer na nangu naa tëkkale tëkkale lii xëy ca kaw waa bu gàmmu gi jubbisee mawlaa ya salli ga jolli naa maam nangu naa takkale waaye bul dendale lii leer na ca kaw bu ñu burdoo fukki fan noppalu bu ñu xëyee gàmmu lii naa tëkkale waaye bul dendale lii leer loxo yi ca kaw bu ñu burdoo fukki fan noppalu bu ñu xëyi gàmmu lii leer naa nangu naa tëkkale waaye bul dendale lii leer waa muxtafin wax leen jaaraama Seydil Haaji Maalik jaaraama wax leen jaaraama Sëriñ Si Xaaji Maalik jaar loxo yi ca kaw nañu wax jaar mbokk yi asalaamu aleykum du ngeen ma fay baay ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ziyaara di la jéggalu ci kàddu yu gàtt yi namoon la rekk si moo tax ñu jóg taxaw di wax ak moom sunu yëf waaye tey kàddu amu fi lenn rekk lañuy fàttali la arab ba waxoon inna bani nahshalin la naddaci li abin waaye tey nag inna bani malikin la naddaci li abin wala huwa bil abna i yashrina si dellu siwaat nañu ci sa kanam wax ni jël nañu buum gi takkaat ci suñu ndigg ànd ak sëriñ njabootu xadra bi yépp ñëw ci naanuwaay bii billaahi wallaahi tallaahi tiwaawoon bii fiihal yumnu lil mutayaamini te wóor na ma ni fama taayirun taayirun mutashaa'imun walakinaha daatu tuyuril mayaamini walakinaha saarat madinatu malikin wa ma malikun illa karimul madaini yaa ngi ñoo ngi dañoo mar xiif jaaxle amuñu fu ñu jëm naanukaay baa ngi nii wàccuwaay baa ngi nii fii la yëf loo ci mën a dégg lu coow li bare bare lu dëkk bi riir riir bu nee kët lana jon ñoo koy faj lana jonn mooy Seydil Hadji Malick gii bu du woon ak sa maam réew mi musiba dugg fi waaye bu du woon ak sa maam Afrique musiba dugg fi waaye bu du woon ak sama monde bi af musiba dugg fi kon si xadara bi yëpp a ngi dañu lay ñaanal yàlla tey bésu sant la yow gërëm la wax la ni la inchaa allahu xawma kan waa yow di nga fi yàgg xawma kan dinga gudd fan xawma kan waa yow moom dinga nga wér càndang ndax nag yow yaay mexakku dëkk bi yow yaay ma xakku diine ji yow yaay ma xakku tariqa bi yow la mag ñi samp te sampantuwuñu la yow la ndaw ñiy xool te xoolantuwuñu la yaa ngi noo ngi dañuy ñaan yàlla yàlla yàlla guddal sa fan sëriñ bi ku neexa a tiitaroo nga waxoon naa la ca xombal ni la loo dégg du nun waaye loo dégg du nun ñun si amuñu fu dul Tiwaawan ak yéen amuñu lu dul Seydi xaaj Maalik ak njabootam su leen neexee noo ngi fi su leen naqaree noo ngi fi demuñu fenn sey si nañu sey si nañu sey si dañoo sey si si sëriñ Moustapha mii li ñu la bëgg a wax mënula ko wax ndax daf laa jege ni ñu la jege waaye si nelaw la wér ni ñëpp ëmbal nañ la cofeel billaahi wallahi tallaahi wàcce nga sa bopp ba ñëpp ñeme la waye fal nga sa bopp ba ñëpp di la dëggaate te ku la xamoon dëgg-dëgg loxo bant bu gudd la lay laale ndax yow kenn du lañu ñam bàyyi waaye si ñoo ngi gërëm sëriñ mu Moustapha suñu rak wuutu nañu ñaari at a ngi nii taxawunu fii waaye lépp lu ci war ci taxawaay ci jëfandiku jëf na ko doxal na ko matal na ko ba jotuñu ca yàlla na yàlla matal léppam si muxta fii na màgg na kër gi amuñu ko ndaw damay wax ni nañ bàyyi wax ndaw ñi ndaw ñi ndaw ñi fii amul ku ndaw Seydi Hadj Malick dafa waxoon ni yow yaa waxoon ni sa baay nee na njaboot ga gën lañuy ñuy tànnal Seydi Hadj malik fii ku gis njaboot gi xam ni njaboot gi kenn tabaarakallah macha allah kon si ci gàttal gaañaa ngi may mere ndax ñi ngi naan dañoo mar dañoo xiif dañoo woor te yow yaay ndoguli bëgguñoo seen lu dul ndoguli kon si yaa ngoog noo ngoog na aajo yi faju yanu nanu diis nanu sippi nañu ko fañ ko waree sippi sunu loxo ngoog jotuñu na aajo yi faju bu la neexee ak bu la naqari wóor na ma ni boo nee ay ca mu am ko ci gis ci ñun la mu ci soxla ajul ci xajul ci tànt bi bu dul bu dul wax leen ku bëgg sa aajo faju rek yëkkati sa loxo kon nag si gis nga ni ñëpp seen aajo yi faju rek lañu bëgg wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Habib kilifa yi fi teew yëpp di ci jiital ministre yi nga xam ni yàlla moo leen jox cër bi ñu am te président makki Sall yebal leen fi ñu tudd rek délégation bu tedd boobu nga xam ni suñu doom moo ko jiite Mame Mbaye Niang ñu ngi leen di nuyu bu baax bi réew mi moomee boppam rek li njëkk a def mooy demander président Senghor pour mu def ko suñu at mu ree mu ni le gouvernement est lay te tànn na at ba noppi mooy 31 décembre kon dootul mën a tànn beneen atu di ko ci bokk te bu leen fàtte ni réew mi ay jullit rek nekku fi mais yeneen i diine ngi fi yu dul jullit kon nag bii nu tànn def ko muy atu ñëpp nga xam ñëpp mën nañu wax ne mooy suñu at nañu ko changé ti di jël beneen bu ñuy indil coow lu dul jeex ah ñu ne waa kon nag léegi nañ ko def feet bokk boole ko ci feet yi Toussaint ngi fi leneen na ngi fi leneen na ngi fi di ay xeeti yeneen yeneeni diine te ñu ngi koy feetu kon nag kii ngeen booleel nu ko ci mu bokk ci feetu jullit yi mu ni waaw loolu dangeen koy dox ci assemblée bi suñu ko wotee mu nekk feet Mansour Ndiaye Bouna moo ko moo ko proposé keroog ñu boole tam xarit ci feetu jullit yi ndax li tax moo di événement yu bari def ci am ñeel yonent yi Ibrahima ak Moussa kenn ku ci nekk jàmm ja nga amoon ca nattu ba nga nekkoon ci bésu tam xarit nga ko am génn ca nattu ba ñu ni ko loolu moo tax ñu ñaan ñu def ko xeetu waaw te yonent bi itam ci la dugg Madina jóge màkk ñu ni ko yooyu yëpp nag tax na mu war a nekk feetu jullit mujj na ko nekk nag su ko defee léegi la ma téléphoné ndokkeel ñu ni man ndokkeelal ma it mbooloo mi te ngeen ñaanal ñu ñaanal réew mi ngeen ñaanal ñu itam ñu nga jëm Burkina Faso pour ay wa fay tàkk ñu jéem ca ndax mu fay loolu yal na ko ci yàlla defal ndam euh, bokk na ci rek Sénégal fu ay am ñoo koy fay ci diine ak ci état feddali wëllëre woowu ak njabootu googu bi Iran ak Irak di xeex mbokk ma benn comité lañu créé bu vingt et un personnes Sénégal ca la bokkoon te man mii lañu tànnoon ñun ñoo dem dox diggante ñaari xeet yi ndax ñaari jullit lañu waruñoo xeex ñoo dox ba yàlla def ci jàmm xeex ba jeex te pourtant lañu ko lale ba am ca ndam ñaan la tànn nañu fii ay mag yi lislaam yu sel waxleen leen ni leen li ñuy doxi bëgg nañ ca ndam te lu jafe woon la ndax ñaar ñu naqari deret lañu kenn ku ne naw sa bopp jullit bu ne jéngu waaye mujj nañ ca ndox ba yàlla def ci jàmm loolu nag ndamal Sénégal la su ko defee ñu ñaanal ko mu dem ak jàmm dellu seeg jàmm fekkaat nu fi ci jàmm euh, réew meeg meneen réew mu dul Sénégal yëpp yàlla def ci jàmm ñu ngi koy ñaan yàlla na ko yàlla def Euh, ñuy wane nag mbégte bu ñu meg ci occasion bi nga xam ni am nañ ci gan yu tedd bokk na ca suñu mbokk mi toog ci suñu wet di Abdou Latif Bakdouri di directeur de cabinet bu ministère des affaires religieuses bu Maroc te ndaw nag li ci sama daan wax rek nee na ndaw du muus lu ëpp atam daf nu ko daan wax mbir day am mu wax nu xalaat nu bañ xalaat ba waaye moom mu sax ci xalaatam ñu dem ba ca biir ñu yëg ni yey nanu ni ñëw di ree ñu ko ah, góor gi de yey nganu mu ni ah dama leen di yey di ndax ndaw du muus lu ëpp atam te wax naa ko bërki démb xale yi ni leen changement ci réew il faut xalaatu mag bokk ca ay ndawi kese bu ñu jógee ni dañuy changer réew la ci mujj rek musiba ñu mujj ko bàyyi ci loxo mag yi te mag ñi duñ ko mën a sottal man leen gis ngeen dëkk bu mel ni Syrie ndaw yee ñoo jógoon ni dañuy def changement dem na tey ba ñëpp d'accord ci ni la fa yàqu ak la fa dee feek deux cent ans du jag ñaari téeméeri at kenn mënatu ko defar ñu gis dëkk bu mel ni Tunisie ndaw yee ñoo jógoon ni dañuy def changement la am kenn xamatul lu mu doon du jàmm du ay boo fa nekkee président amoo baat te ña la wër mënuñu laa jox pexe kon réew mooma dellu gannaaw la gën a jege ci jëm kanam nga gis beneen dëkk bu mel ni Égypte ba ñuy ndaw nekk ci daara yi jàng alquran dañ nu doon jàng jàng laale histoire humanité bi ñuy jàng aqdamu umamil ard alhindiyun والصينيون والمصريون والحق لا يعلم ذلك إلا الله ñu ni xeet yi jëkk ci kaw suuf mooy indien yi chinois yi égyptien yi ñu ni waaye nag dëgg-dëgg ga yàlla rek moo ko xam tey seet leen Égypte bi xale yi jógee ni ña ngay changé réew maa ngay tàkk rek ka ko jiite itam xolam lay arrangé réew ma waaye arrangé wu ko xelam te xol nag du ame réew xel moo koy ame waaw xel mooy doxal réew waaye xol du ko doxal moom nag xolam la ko bëgg a doxal il faut dire la vérité moo tax réew maa ngay tàkk rek di dem kenn xamul fu mu xale ya lànk nañu ñoom itam gis seen bopp kenn yilifatu leen ña ngay dem rek di dem ma ni kon changement réew mi ngi amee ci ay ndaw yu sukkandiku ci xalaatu mag su boobaa lañu bëgg daañ ko am te dama leen di wax toujours ñoom xale yi ni leen ñaar dafay yàq xarit laaj sa xarit lu mu amul waaw maanaam teg ko lu mu manul ak gàntal sa xarit loo man bu ci ne day yàqu xarit ma leen toujours li ngeen di tege mu jëm ci nguur gi na nekk lu ñu man waaye nguur gi na góorgóorlu ba la mu leen di gànt bu mu nekk lu mu man waaw yooyu bu ci ne day yàqu xarit tege loo manul tege lu kenn manul ak gàntal sa xarit loo man su ko defee nag mu mel na kon dafa laaj ñuy waxtaan di déggoo ci principe yi nga xam ni moom lañuy yaakaar ni mën nañ ca jaar defar ndax loolu mënu ñàkk ci réew ñuy xalaat di joxe nit ñi di ca jaar alquran naka wax wala takun minkum ummatun yad'una ila alxayri il faut mu am ñoo xam ne ñooy woo nit ñi di leen jëmale ci jàmm ñooñu nag bu seen xel rafetee rek jàmmay am waaye bu seen xel rafetul euh, musiba am dafa am benn jamono may fàttaliku ndeysaan booba ñu ngi ci daara di jàng euh, diggante États-Unis ak Russie Euh, chef ni dafay dem Kiba euh, président États-Unis Kennedy ni ko soo demee danaa la bombarde ku ne matt di xas di lafañal suñu benn baay bu ñu nekkaloon ci daara ji yal na fa mag mu rafet làmmiñ nekk de waaw yal na fa mag mu rafet làmmiñ nekk ba mën a wax ba seral ay wuy di bëgg a tàkk ndax bu tàkkoon troisième guerre mondiale am te troisième guerre mondiale bis bu tàkkee bu ñu yóbboo ku nekk takk say bagage ñu wuti àllaaxira rek waaw moo tax nag il faut mu am ñuy teg nit ñi ci yoon ñooñee nag yàlla na fekk seen xel rafet yonent bi tam wax ci benn xadis ñu ko gis ci yéen lu dul noonu na ko jéem a dindi bi yeddihi ci loxoom bu ko manul ci làmmiñam bu ko manul ci xalaatam su ko defee kon loolu toujours ñu ko yóbbaale mu waxit ni ñaar ci sama xeet bu ñu yéwénee nit ñëpp yéwén bu ñu yàqoo nit ñëpp yàqu moo di buur yi ak fuqahaa yi boroom xam-xam yi ami diine di jottali nit ñi waxu yàlla walla waxu yonent bi ñooñu bu ñu yàqoo nit ñi yàqu su ko defee kon nag mu ni ngeen bàyyi nii réew du yàqu nit ñaa yàqu ba tey senegal fi jant doon fenk lii fi lay fenk fi mu doon sowe lay sowe mi ngi taw nuy bay mi ngi ñor nuy lekk nu ngi dem di wuti lu ñu am di ko am kon bu yàqu ñun la ñoo yàqu maanaa noo xajootul waaw noo xajootul réew mi te réew nag bu boroom demee ba xajootu ko réew ma dafay yàqu waaye bu nu xajoo réew mi rekk réew mi baax te xajoo si réew nag mooy lu ñëw ñu waxtaane ko ba seet na mu gën a rafete ñu doxale ko noonu te am na ñoo xam ne kenn du leen topp ndax jëmuñu fenn jëmuñu fenn dañu échec ci plan yëpp si tous les plans kon léegi li ñu desee mooy dëkk bu ñu dem seet xale yi ñu mën a nax ñu yenu loo leen lu ñu àttanul ñoom nag dem fële taxaw saaga nag ñëpp nag ku ñu wax defe ni mën naa wax xale yi lu tax ñu dellu gannaaw ñu saaga ko ci kanamu xale yi saaga sëriñ si nangam nangam sëriñ si nga xam ni waaw ay sàcc lañu sëriñ si nga xam ni ñooy puus gouvernement yi eh, wax lu leen neex ci sëriñ si waaw sëriñ si ñoom toog di xoole rek ah nooy def nooy def da nga leen di rey wala da nga yebal ñu rey leen déedéet jaru ko mooy ñëwaat ba yeew buum ci baatam dikk ni la baal ma ki ni la baal ma ku la ni baal ma loo koy wax lu dul baal naa la hmm? baal naa la nga defee loolu rek la yooyu yëpp dañ koy ay dumat la rek yi ñuy dumatee ñi ñu bëgg ñu def musiba mais sëriñ si ñaa diine ñor alquran ñor leen ñu ngi leen di jéemaa ñu ngi jéem a defar toujours li defar réew waaw ñu defar réew bu ñu wéetee ñi moom réew mi dañ leen di wax li ñu xalaat waaye nag du ñu génn taxaw ca mbedd may bàkku naan maa ko wax lii maa ko wax la moo tax ma waxoon xale yi ni leen bu ma kenn présenté projet réalisation la bëgg ko ma koy présenter ay projet ku ne mën nga defal sa projet fu ne nga yóbbu ko fa waaye bu réaliser wul nooy def su ko def nag kon la waykat ba wax rek la amruka ma daqat bilaadum bi ardiha walakin axlaqa rijali tadiqu maa ngi lay giñal ni réew suuf sa du xat jikko nit ña mooy xat waaw réew suuf sa du xat jikko nit ña mooy xat li ci réew mi bu ñu jógoon pour dundal ko réew mi day dox comme ni ko Moustapha waxee léegi euh, ñu dem bay dem bay ñii bay ceeb léegi ñu am autosuffisance ñii bayi dugub man sama mbayu dugubu daaw ba tey ci lay lekk bu ren bi góob naa ko àllarba ji paase te xam naa ni li ma góoboon daaw ba bojj ko ñu di ci lekk mën naa cee dem ba ca kanam te pourtant sedd naa ci ku ci war a am ku ma war a jox ñaari saaku rek jox naa la ko ku ma war a jox saaku jox naa la ko te xam ngeen ci dara yéen ñi ma dëkkal ndax xam ngeen lii ma wax dëgg la walla du dëgg ah waaw bu ko ñeneen defoon ci ñebbe ñeneen def ko ci puloox ñeneen def ko ci mboq léegi séréer si rek <laughs> waaye Sénégal réew la moo xam ne ni ma koy waxee toujours bëgguñu liggéey dunde tappale dunde lañu xam dangay gis ku am këram ñetti jabar oto sañse dugg génn boo ko ne looy liggéey du la ko wax mukk waaw maa ngi tappale di dunde rek la lay mën a wax waaye mën la wax la muy liggéey su ko defee kon euh, suuf si xatul ñun ñoo xat rek waaye ku bëgg a liggéey da nga ah, liggéey nag du yomb doo toog rek mu takk boppam ñëw nii la maa ngi déedéet il faut nga takku euh, muñ tuuti nag muñ ñun depuis soixante trois soixante gis nii fii ci région bi kenn mënatu fee bay loo loo bëgg ndax amatul suuf su doy ñu dem Saalum gor fa àll di fa bay léegi àll ba dëkk la mi ngi tudd ma Madina si sama sant laa ko jox <laughs> pour bu ku ñëw xam ni lii maa ko réaliser il y a 2400 personnes yu fa dëkk di fa bay di bay ndoog man di bay seen gerte di bay seen dugub ak leneen lu ñu bëgg dëkk fa ak ñun am nañ fa ñaari école école française école arabe am nañ fa deux forage am nañ fa juma ak ñetti jàkk te ñu ngi continuer bàyyeeguñu kon taxawaay rek mu am solo su ko defee kon nu bañ a tawat réew mi waaye ñu tawat suñu bopp euh, sëriñ bi nee na na ngeen dellu yéen ñépp ci yaru diine la conscience religieuse Euh, yaraat suñu bopp yaru diine te bañ a nax suñu bopp yar suñuy njaboot yaru diine wax naa ko benn chef d'état bu ma doon waxtaanal mu ne ma est yow wóolu nga gouvernement islamique ci temps bii ñu toll gouvernement buy daggi loxo gouvernement buy jël xeer di ko sànni nit ba mu dee wax a ma ni ko yow déggoo lislaam ma ni ko lislaam waxu loolu benn yoon ma ni ko yonent bi reñam vingt-trois ans la Aboubacar Omar Ousmane Alioune seen règne trente la muy cinquante trois ans ma ne ko cinquante trois ans yooyu ñaari loxo lañ ci mas dagg ma ni ko te benn bi ki yóbbu yonent bi ba teg ko ci buntu devant le fait accompli amatul pexe yonent bi daf ko mere durant toute sa vie ba bu ko séenee wëlbati kanamam ma nga xam ne lislaam ñëwul pour daggi loxo wala rey nit ñi man ko non dañu ni nañ yar nit ñi yaru lislaam ba tey euh, boo demee Arabie Saoudite ñoom gaa dañu imposé yarul islam par force waaye tax na boo jëloon oto def ci objet yu la neex gaari ko fii ci mbedd mi ba bis ba dellusi nga ñëw ubbi ko doo fekk kenn jege ko sax waxatuma la ak di ko laal waaw fii ci nun Sénégal boo gaaree sa oto rek dugg ci boutique bi boo génnee fekk ñu jël ko ajjuma ju jot ñu julli si juma 4 pour cent seen dàll dana réer 4 pour cent seen portable dana dem te ay jullit a koy jël ñun nag ñu yar jullit yi ba ñu àgg ci boobu niveau boo tegoon fukki portable ci bunt bi kenn du ko laal loolu ma ni ko loolu la ñuy wax waaye waxuñu ñu jël gouvernement boo xam dee daggi loxo nit ja dañ nañ yar nit ñi yaru diine ba kenn dootul jël loo moomul ah waaw dëkk yu mel nii Tiwaawan dëkku Alaaji Malik ak lim fi saxal ci diine li fi saxal ci yaru diine te ba léegi koo dajal mu ne sama portable dañu ko jël dama demoon rek di julli ci jàkka ji ci embouteillage bi ci bunt bi rek lañ ko jël kii naan sama dàll fa ma ko tegoon ba léegi dañu mujj obligé ñun wut ay étagère ci biir jàkka ji pour teg ko pour ñu di ca teg dàll yi ndax kenn du ko sàcc mais taxul mu saafaraw ba bërki démb lay waxtaan ak benn technicien ñu di ci wax ma ni ko man daal daf ma metti trop nit ñëw ci kër gi di julli si ci jumaa ji génn naan dañoo jël sama dàll ak dañoo jël sama portable mu ni ma danga fii def ay radar ba loolu lañu mujj yi ñu ngi koy defar mun ma ñu posé ko ci biir jumaa ji ak ci bunt bi ak ci biir kër gi lu ay jël rek ñu xam ku ko jël te loolu ñu ngi ci tànk yi di ko def yar boobu la ñu bëgg ñu yar ko mais am na lu ñuy xuloo lii ko ëpp importance loo teg ñu jël ko foo dem ñu sàcc la ci Sénégal ci marché yi ci jàkka yi ci gàmmu yi am na bés ma dem gàmmu gàmmu euh, dëkk bi waay ci gannaaw gaaya la de bokkal bi ñuy génn ci njël maa ngi defoon quatre cent mille ci sama bi ñuy euh, tasee gàmm gi bay génn gis naa benn waay mi ngi sol xaftaanu drap bu chocolat ak benn laafa mu ngi jege bu baax di jox xajaleen sëñ bi xajaleen sëñ bi waaw coow li ni kur waaye ma yëg ni loxoom daw na ci sama poos ma def ko ni mu rocc ko waaye nekk lu gaaw gaaw yónni yónni yóbbu na ci cent et quelques mille te yëg naa ko waaye xam naa ni su ma ko waxee ñu gaañ ko foofu te loolu cent et quelques mille jaru ko ma bàyyi ko rek mu yóbbu sama tuut si ma yalwaa noonu yëpp yooyu jikko lañu ni ñu delloo si yaru lislaam ci nit ñi ba loo moomul nga man koo muñ moo moo ko bàyyi ko fa bon société boo xam ni sosalante sosal gis boroom jikko kilifa gu baax benn nit bu bon sosal ko lu ni weng te moom du ko mën a dindi waaw société boo xam ni añaanante lu sa moroom am nga añaane ko waaw waaw waaw ñii sàcc xaalis si réew mi ah ma waaw ñu koy wax nag dama waxoon ak benn sulaar dañoo dëkkoon mu dem naan ba man di ma gis ko nu ko eh mun ma eh, teel sa gémmiñ mun a ma alaaji Malick ne kuy def lu bon nga di ko wax yaa ko yées te yow ñu koy wax yaa ngi koy def yaa ngi jël alal jàmbur ñu xam ko yaa ngi koy def ci beneen façon te itam la fuyet bu ñoo waxoon rek bañ ko ne nit ñaa ngi sàcc alal réew mi mu ni ah kuy saaf gerte bul xool gémmiñam nag kuy saaf gerte bul xool gémmiñ ga il faut mu yëy ca dara la bon nag moo nag loo li bon mooy mu ëppal mu ëppal nag muy lii mag ñi daan wax ni ku la feesloo moola la yàppaloo waaye bul jël xar nag bàyyi ko kula la feesloo moo la yàppaloo waaye bul jël xar ma bàyyi ko waaw ñu bàyyi lool ñu ko war a vérifier ko waaw réew moo xam ni ŋàññante rek réew moo xam ni saagaante rek réew moo xam ni sosolente rek léegi loo xam loo teg ñu jël ko te kenn du ko wax bërki dem rek laa ko wax ki amee suma daara di leen jàngal Ibrahima mii ci la bokk ma ni ko euh, il faut ñu jël ay mesures gën a surveiller xale yi gën leen yar yaru diine ba du ñu bokk ci ñi nga xam ne lu ñu gis rek jël ko man kon nañ leen yar nañuy def am ak ñoom ay waxtaan semaine bu ne benn yoon ma ñëw fekke ko wax leen nit ku baax ni mu war a mel ak jullit naka la war a mel ak jëlloo moomul dafa am benn seen bu ma mas a fekkee bu am solo ci man ka mu ka ko def sax xamul ni def na ko ndax jikkoo ma waaye man mu nekk ci man exemple bu doy euh, doo doomu Serigne Cheikh Mansour euh, soxna Asukan ku mënoon yar la moo tax bi muy génn àdduna lu ëpp cent cent enfants bàyyi na leen ñun ñoo leen séddoo sëñ Cheikh am ñu mu ci jël ma am ñu ma ci jël soxna umu soxna Zeynab soxna Amint li mu gënoon bañ nag xale buy laal luñ ko joxul boo ko defee rek mu caw la léeg-léeg nga ni koo mais yaay bàyyi xale bi mu ni dafa laal liñ ko joxul te loolu baaxul fa la koy tàmmee Mansour nag Mansour doomu Cheikh booba mi ngi toll dalagul jàng sax ci trois ans quatre ans lay toll mu ñëw fekk soxna si defar beñe bu neex ndax dafa mënoon defar yu neex yooyu doomu ndar la woon Mansour na bëgg si waaye ñemewu ko laal mu ñëw ci saal bi fekk sama papa mi ngi toog mu ne ko maam xalifa kaay sama nag ku bëggoon sët la lu ne sët mën na ko ko defloo mu ne ko maam xalifa kaay sama papa ni Mansour loo dee mu ne ko kaay rek mun Mansour bu ma jógloo bàyyi mu ne ko maam xalifa kaay rek Mansour sama papa jóg ni ko lan la mu ànd ak moom ba ci bool bi mu ne ko maam sàccal mi ci lii <laughs> ah. ndeysaan mu daal di ñu ko ah Mansour yaa ngi may def loolu lu ma masul def de sama pap tontu ko loolu tasanteeg may ñëw mun ma ana yaay ma ko mi ngi ci parin bi mu ni woo ko ma woo sama yaay mu ñëw mu ni ko soxna si maa ko Mansour dañ lay yalwaan ci lii <laughs> ah. sama yaay ree ni ko ah, waaw yow yaa moom bool bi kay ah, waaye waxoo ma ni maa ko moom te joxoo ma ko kon moomaguma ko waaw muy seen bu ndaw waaye man mu def ci man lu bari sàccal ma ci lii ñemewu ko laal moom mu ñëw nit ñu ngi lay yalwaan ci lii lu c'est très important sa doom bu ndaw foofu nga ko commencé di ko jàngal bu laal yëfu jàmbur di ko ko tengalal ba mu man ko bàyyi c'est sa yar yooyu lañu bëgg yaru lislaam ñu delloo si ko ci Sénégal xale yi màgg ci xam seen bopp xam seen dignité xam li ñu fekk seen maam yi amoon ko ci ay jikko jikko màndu ci alalu jàmbur jikko yërmande yërëm sa mbokk xoolal dañ ma nettali benn seen fii ci senegaal benn góor gi nekkoon fii ci Tiwaawan ñu di ko wax Moodi Mbay moo jur soxna Sagar Mbay yàlla daf ko dénkoon tuuti xaalis te mu tabe nag mu am benn góor bu ñuy wax sipiteer fay ca Ndar mu nekkoon gérant Morel Prom wala Vésia wala yooyu daal mu am benn xaritam bu ñëw leb ko xaalis mu jox ko mu yéex ko fay te ay patron ca dakaar ni ko daañu def ci inventaire jour tel te rus na dem laaj ki ko leb ni ko dellooma xaalis bi mu jóge ndar ak titre foncier ñëw Tivaouane ni moo di mbay man de damay def inventaire te sama kees manqué ndax dafa amoon benn mbokk bu ma leboon xaalis te daara rus naa ko soññ ma bëggoon jox lu suma titre foncier defal la benn bon nga lebal ma temps su ma defee inventaire ba noppi rek ma delloo si la ko góor gi d'accord jël titre foncier bi mu def bon mu jox ko xaalis bi góor gi fanaan ba suba mu ne ko nag damay dellu ndar góor gi moo di mbay ni ko ma gunge la ba kell ndax dama am samay bokk yu nekk foofu te ma am ci ñoom soxla ñu ànd dugg saxaar ba saxaar teddee ba ñu yegg ngaay góor gi moo di mbay dindi titre foncier bi ak bon bi xotti ko delloo ko titre foncier bi ni ko sipiteer gor yi nekk Sénégal seen diggante bor xaju ci lu ci nit moom rekk sa morooma ko moom am soo delloo see baax na soo delloo suul yaa xam góor gi sipiteer ñëw jaaxle di ko nettali maam du sekk maam du sekk mooy jur yaayu sëriñ mbay si ni ko daal lii la ma moo di mbay def mu ñu ko ah sipiteer ma nekk fii ci ndar nga am soxla dem ba tiwaawoon te waxoo ma ko man mu ñu ko ah li nga yenu moo diis kër Cheikh Saadu ab yëpp sa kër la ñuy dal kër Cheikh Sidi yëpp sa kër lañuy dal sa kër nit ñaa ngi togg guddeeg bëccëg ni ñuy def loolu rekk a tax ma dem seeti mu ko ah yow daal amuloo bopp rek mu dem mu woolu benn nit nu ko wutal ma kër gu ñuy jaay ci ndar mu ba gis benn kër ñëw wax ko njëggi mu jox ko ko mu ni ko mutation bi kuñ ciy def turam mu ni ko sipiteer mu dem toppatoo ba mu pare mu ñëw jox ko këyitu kër gi mu ni woo leen ma sipiteer sipiteer ñëw mu ni ko am kër angoog li nga ma def daal bii yat bii yat rek laa ko mën a fa yow ma ni bon bu doon léegi du ko lebal ba noppi siiwal ko diwa ma doon leb si xaalis wallaay ma ni ko yàlla tere ki ko dégg it daal ni ko boo ko lebalee ñàkk de jeex na moom itam du fay du fay fa lay doxe lépp dab bi bu la gisee jàdd bu la séenee daw te ki nga ameel borta fayoo ko fu mu dajeeg yow jaamam ngay doon ba ba ngeen di teqali ko du ñemee dem te bàyyiwu la moo tax daaw dama demoon sa dëkk ba ah rek euh, benn góor gu baax gu saraxule moo fa tabax benn jàkk ci quatre cent millions may ko jullit yi ndeysaan gannaaw gi nag xanaa am na ku mu doon jëfanteel mu war ko ci jëfante ba mu soxla cinq millions déedéet astafirullah dafa soxla dix millions mu ñëw man gaa xaw ma ko waaye xam naa rakkam rakkam suma xarit la mu ñëw daal wax ma ah man de dama kam dama jaaxle ndax daal dafa am benn waaye moom dafa ma wor nangam nangam ma bëggoon nga lebal ma dix millions ah man góor gi man yoru ma dix millions man du ma denc xaalis ñu ñëw ci ndeyjoor bi jaar ci càmmoñ bi dem loolu lañ ñu sant di waxu ñuy denc xaalis foo ko denc jëme man ko cinq million daal laa fi mun ma indi ma jox ko mu dem ma wax ci sama xol ni ah cinq mille yi de cinq millions yi de bu ma yóbboo sàkkal ko sarax ndax xam naa ni duma ma fay man loolu la wax ci sama xol de ma toog benn bis rek ñun ma góor gi moo lay seet ma ni ah yàlla buti day laaj laajati xaalis de bu dee laaj xaalis daal moom duma ko man ci sama xol lool laa waaye yëpp sama xol laa waaye man na ñëw mu ñëw mu ne ah na nga def ma ne maa ngi fi ah ngeen ngi naqari ci yow rek ma ne ah, waaw jamono de góor gi neexul ci kenn fi mu nekk mu ni ma ah waaw mbir boobu ma fi jëloon ah moom laa doon delloo si daal di kot kot kot génne cinq millions yi ma am mais mu yéem ma ni ah, góor gi yow daal yóbbu ci journal ndekk nit a ngi fayati bor ci àdduna bi ma ni ko amatul ma ni ko mën yii cinq millions sa sàkkaloon naa ko sarax ni doo ko fay si ah mu ni ëpp naa wax ma dindi deux millions ya delloo ko ñu ko demal nga dimbandikoo ko te bàyyi ma trois yàlla baax na acte ba tax ma defal ko loolu loolu ku leb du fay koo leb du la wóolu mu am ci jamono du ci Sénégal rek de ci àdduna bi yépp ndax bari na sénégalais bu wuus réew dootu fa dem wan na mbeng mam fa def ak xaalisu jàmbur yam fa turiyande moo tax ñemeetu dem ci réew moomu te loolu du sénégalais bi yépp kii da koy def ci biir réew kii def ko ci biir réew loolu nag lañu bëgg yarul islaam dellu ñu commencé ko ci xale yi ci ndaw yi ci kër yi ci wanag yi ci ëtt yi ci mbedd mi ci marché yi ci butik yi ci lépp ba nit ñi dellu dundaat yaru lislaam xam naa lu jafe lay doon nag waaye buñ ci góor góorloo boroom nee na muy ki ma fi toogal muy Serigne Cheikh nee na danañ am résultat mu ni ndax yonent bi ma wax ni ittaqillaha xay suma kunta na nga ragal yàlla foo mën a nekk te ñaaw téef boo def boo fa jógee na nga def rafet rafet ndax mu far ñaaw téef ba nga defoon mu ni te na ànd ak nit ñi ci jikko bu rafet na nga rafetal si jikko ba ba mën a ànd ak nit ñi mu ni loolu yëpp ma fàtte leen ko mu ni ma fàttali leen ni yonent bi jibril dikkal na ko ni ko indil naa la jikko yu tedd àdduna ak alaxira te moo di la yàlla wax ci suratul araf xudil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin mu ni ko sa boroom nee na nga jokk ki la dagg jox ki la xañ jéggal ki la tooñ c'est très important jokk ki la dagg yombul xamoo jox ki la xañ ki jo jox nit ñépp nga ñëw yow mu tëb la bu dee léegi yow tam yaa ngi koy nekk bésam tëb ko delloo ko bor bi mu ni nga jéggal ki la tooñ yombul nee jot na waajuri ndaw yi delluwaat jëmbat ci seen conscience yaru diine waaw nee nag ci niveau réew mi lañ koy def duñ ko def ci niveau benn famille walla benn kër walla benn école walla benn daara déedéet neena na nañ ko def ci niveau réew mi ba kenn ku nekk sa wax ak sa jëf sa comportement ak sa xaal say impression yëpp mën a dëppoo nekk benn nee na loolu nag yaa ngi koy commencé ci sellal sa xol raxas ko ba mu set lépp lu ci nekk ci piiraange lu ci nekk ci kañaan lu ci nekk ci soxar li ci nekk ci noonoo yooyu yëpp nga raxas ko ba dara dootu ci def ci sa xol nee na nga jëmbat nag ruuxu cofeel ak yërmande ak mbokkoo ak solidarité ci xol yi jëfe li yonent bi wax ni bu leen merante bu leen daggante bu leen dëddoonte bu leen am ay këral ci seen diggante mais na ngeen nekk ay jaamu yàlla di ay mbokk laa tabaagadu wala taqaatuu wala tadaabaru wala tashaajaru wa kunu ibadullah ixwaana mu dal wax ni kenn ci yéen du nekk woy gëm du bokk ci woy gëm lu dul mu bëggal mbokkam li mu bëggal boppam loolu la ñu lislaam sant yonent bi nga xam ni moo ñuy yar moom loolu la wax nee na na nga bëggal sa mbokk li nga bëggal sa bopp na nga yéene sa mbokk li nga yéene sa bopp ndax néeg yéene néeg la borooma cay fanaan ne su ko defee nag kon ah, li mu wax bari na euh, te toogaay bi yàgg na waaye daal li waral mbooloo mi ak jël jenes bi dañu bëgg a dabaatal lu bari lu yàqu ci jikko jeunesse bi wala boog ci jikko nit ñi te loolu nag kenn du ko defe mer kenn du ko defe xuloo kenn du ko defe saaga naxante ak yombalal nit ñi ak teg leen ci yoon wi nga xam ni mooy yoon wi leen di defar loolu rek lañ koy mane neena na te bul wax mukk ni ah loolu nit ñi mënatuñ ko wala taqul qad dahabat arbaabuhu fa kullu man saara ala darbi wasal li nga ni nit ñi mënuñu ko yow yaa ko mënul waaye keneen ku dox ca yoon wa it daf koy am su ko defee nag kon ngeen bàyyante xel mbooloo mi lool rek le wax naa Moustapha mii ma ni ko bu leen def mbooloo yi nga xam ni dañuy wut prestige rek di wax lu ñu mënul wax loo mënul bu def ko jotee nga fen ndax doo ko def wax loo mënul bu def ko jotee rek nga fen ndax doo ko def ma ni ko kon wax leen lu ngeen man te naa seeni projet ba am lu ko réaliser ngeen door a wane boo demee fële ci gannaaw dëkk bi tabax naa fa benn institut islamique tudde ko Cheikh El Hadji Malick mi sol sos xam fii ci réew mi ndax cité religieuse bi yonent bi bëgg moo ko jëkk a def moom Maodo maa ngi fàttaliku ci guerre bi 39 et 45 sama papa am benn lettre anglais keke bind xam naa Arabie Saoudite la dëkk waaye mënu koo xereña bëgg na bind anglais te mënu ko waaw mu bind ko góor gi góor gi ni ma ah waaw yóbbul jox ko xaalis bo mu seet ma ñëw jox xaalis xool xool ni ko ah ni ma nañ dem ñu dem mu ni ah góor gi lii du arab du anglais mm-hmm. ah góor gi ni ko kon de kii wacc na wacc na yaram ndekete dafay tàgge sëñ kër Si soxna umul xayri yaasin bu Seydil Haaji Malik daf fi jóge rek aji wàcc rek ci aéroport am coup de soleil foofa la daanoo ñu yóbbu ko hôpital mu gaañu ñu suul ko ñun yëguñu ci dara kii yónnee télégramme bi nag bindul arabe bindul français ku génn dégg angale ku ne jox nañ ko mu ni kii daal li mu bind kenn xamu ko sama papa ne ah, kon yàq na soxla bi avion bi jëkkee ñëw rek fekk ci bi jëkkoon dem la dem ñu dem teeru ji gis jëkkëram rekk moo waaj maanaam rakku jëkkëram rek moo waaj ñu ne ko ana soxna si soxna sax soxna si faatu keroog ba ñu àggee Madina wallahi alazim sama papa ni ma kon nag lettre boobu kii loolu la doon annonce ndeysaan fii la nekkoon wiyee saam nekk fële di benn animiste gëmul dara amul diine di nax jigéen ñi ku ci am feebar mu jël gémmiñam dëpp ci sa jumbux génne lu mel ni butit naan la lii moo la doon jàpp moo boo ko bàyyi woon mu rey la nga def nii nga def naa nga fay ma nàng mais fa lañ ko bàyyeeg animisme am jotewuñ moom dara mu ni cité bi daal jàmm rek laa fi soxla ku mu neex na nga ñëw dëkk te joxe na exemple bi ba jóge fii sëñ Babacar Si joxe exemple bi ba jóge fii alxaaji Abdou Aziz taxul ñuy wax loolu lañu bëgg fàttaliwaat ko nit ñi ndànk-ndànk di ci gimuloo xale yi di leen waxe histoire u Sénégal tuuti fi ñu daan jaar ak mag ñi parce que am na ci ñoo xam ni euh, boo leen waxee lu passé soixante rek xamatuñ ko soixante ko defee loolu nag la sëriñ bi wax ni ñu fàttali ko nit ñi ndax ñu mën a taxawaat pousser itam jeunesse bi ñu gën a mën a weesaare bàttu lislaam ak principe bu tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tidiane bii nga xam ni principe yu weex tàll la dara lënd mu ci amul dara loo ci mën a wax lu Seydi El Hadji deful lay bind na critiqué na ñaari livre yi mu mujj bind lépp critique la lii ci diine lii ci tasawuf li ñu dugal ci tasawuf te bokk ca moom la def critique muy ifhamul munkiril jaani li ñu dugal ci diine te bokk ca moom la def critique muy euh, euh, euh, kifaayatu raaxibin muy kifaayatu raaxibin waaw lu ne bind ca pour bëggoon nit ñi seen jikko baax seen jikko defaru waaye lu mu mujje lu mu mujje mu mujj ba muy dem mu ni maa ngi leen di tàgg tàggoo boo xam ni borom du dellusi si ndax sama yaakaar dafa tas ndax li ma xaman ci lu baax yépp jul yullil naa leen ko te gisuma kenn ku changé waaye du tax nga bàyyi brassé say loxo di seetaan il faut nga def dara mu ne nag kon na ngeen dellu ci yar boobu ngeen gëstuwaat ko euh, dundal patrimoine bu tedd bi nga xam ni moom la fi bàyyi géema wattu itam méthode de travail ci wàllu diine ak wàllu àdduna yi mu fi bàyyi woon nga xam ni yooyu yëpp feeñ ci yaram ak jàngaleem mu ni yéen xale yi yéenay ah, yaakaaru xeet wi ci liy ñëw ci seen kawit la responsabilité changement bu ànd ak yéwénal waaye itam ànd ak xelu mag ñi nee na amul benn xeet buy avancé te du ci ndaw yi sukkandiku mu ni waaye nag ngeen dolli sellal ci seen yëngu yëpp ak seen dal yëpp nangeen ngeen sellal nee li nga xam ni mooy seen jagle naay feeñ ci yéen toujours mu ni te na ngeen xam ni fu ngeen nekk di jëf yàlla ngi leen di sëpp di leen xool yàlla kenn mënu ko nëbb sa moroom doomu aadama ngeen mën nëbb waa yàlla mënu ko nëbb mu ne na ngeen yóbbaloo ci àdduna bi ngeen di dund yen ndaw ñi ni ngeen yóbbaloo yóbbalu xam-xam ak xàmmee ak culture ak engagement nee na ngeen jëfee waxu alaaji Malick ba mu leen wax ni ala ya bani hada zamani daawtukum li ixyaai diinin bil ulumi ajibu Maodo dafa ni yéen doomu jamono woo naa leen ci ngeen di dundale diine xam-xam wuyu leen ma mu ni diine kenn du ko du kenn dimbale xuloog saaga xuloog saaga du defal diine du defal réew nee yéen xale yi de leen fréquenter jàkk yi te du tee ngeen civilisé civilisation sax ci jàkk la nekk ndax boo gisee condition yi ko yonent bi tërale man def naa ci benn brochure bu ama am solo d'ailleurs ñu ngi koy édité pour rekk jàkk ni mu amee solo ba yonent bi wax ni ku miin jàkk yàlla miin la yàlla miin la lan la jaam am lu ëpp yàlla miin ko ak la mu ca wax yépp euh, mu ni kon na ngeen di dundal jàkk yi ak zawaaya yi te ngeen di fa dem suba ngoon bu ngeen dee liggéey yeeg bu ngeen dee jigéey ci liggéey yépp mu ni ndax jàkk jaamu yàlla ak jëf ay bokk lañu jaamu yàlla ak jëf ay bokk lañu nee na <clears throat> boo ci doya dal yëkkati ba ca des rek déggatoo diine wutil loo am waaye jaamul sa borom wutil loo am waaye jaamul sa borom nag ñooy ànd ñoom ñaar su ko defee kon nag mu def benn xasida xasida bi nag yéen a koy firil seen bopp bu am solo mu dénk ko ndaw ñi moom Cheikh Ahmed Tidiane Sy waaw ah, dénk na leen fi ngeen war a jaar yëpp mu tënk ko ci benn eh, hamziya boo xam ni ma nga leen cey dénk na nga wut conduite te na nga am sistem bu wér booy doxale sa dund mu ni bëccëg bi yëpp yow yaa ko moom su fekkee ne da ngaa bëgg a jëf rek bëccëg bi yëg moom nee te maanaa repos la wala jëfukaay la bu gudd boo xam ne lu ne mën nga ko cee def boo ko organise mu ne bul neenal sa bëkk sa bëccëg ndax lu am barke la nga neenal ko wëreeloog taxawalu ci quartier yeeg pénc yeeg grand place di gëlëñtu rek mbiru nit ñi mbiru keeg mbiru kii kii de lii la am kii de lii la ñàkk diw de nangam nangam nee loolu euh, euh, amul njariñ amul njariñ ku ne nga xam lu mu yendoog lu mu fanaani di dañ dañ kumpa bëgg xam lu nit ñi nekk ci lu baax ak ndax yow li baax yépp def nga ko ndax li bon yëpp bàyyi nga ko kon looy seeta ku def lu baax ak lu def bon sa yoon nekku ci nee na tagg kee dem fi ñi ŋàññe nga bokk ca ŋàññee dem fu ñuy tagge nga bokk ca tagg wa ku ne nga am looy wax ci mbiram waaw loolu lu mu lay jëriñ mu ni boo jàngee ba noppi wuti liggéey wuti liggéey boo jàngee ba noppi bul dem toog rek naan jàng na waaye am ma lu ma def naan ah kañ ah kañ yaa ko wutu dama am sama benn doom am ni daf daan ñëw di ma wax ne dama bëgg génn dama bëgg génn wutal ma euh, visa ma ni ko waa indi sa passeport mu indi ko ma téye ko rek ma jékki-jékki gisatuma ko beneen yoon mu ñëw sol xaftaanu bassin bu rafet nuyoo ma cinq mille francs ma ne ah saway foo nekkoon xanaa da ngaa demoon it da ngaa mujj dem Italie te yëguma ko mun ma déedéet maa ngi fii ci Mboro donc ah man waaw léegi organisé naa bu kuy leb xaalis ca Mboro man lay leb de man ko ah kon nag yow jàmbaar nga mu nettali ma nag ni mu def ba am xaalis man ko waaw loolu yëpp daanaa la jox ay vingt cinq mille ay cinquante mille boo ñëwee waaw yow loolu yëpp nga def ko am ko joxoo ci lu ci cinq mille mun waaw mosondil loolu ba ci kanam parce que ci organisation la ñu nekk nag yow tam man ko kon nag d'accord ma ni kii de bu ñëpp defee na moom ah sëñ Cheikh nee na ni ngeen bàyyi toog bañ a def dara nee na baaxul ci góor baaxul ci gor baaxul ci jullit toog bañ a def dara looy def dara foo demoon fenn maa taxawàllu ji woon nee na nga am looy def nee na toog rek bañ a def dara day indi toroxte nee ndox sax su yàggee te kenn yëngalu ko mu forox ndox bu yàggee taa rek taa ci barab te kenn defu ca dara day forox nee na nga préparer sa conscience ba mën a wax nit lu ko jëriñ wala tere ko lu koy lor nee na bu dul yooyu ñaar jàppal sa bopp ndax nga mucc ci werante ci werante su ko defee nag kon ñu ngi dellusi rek di yeesal cant ci suñu doom yi ñëwoon toogal fi président de la république nee ngeen ñaanal ko yéen mbooloo mi ndax fa mu jëm ca Burkina Faso mu am fa ndam te wax na dëgg ñaan mën naa indi ndab mën naa indi ñàkk ndab ngeen ñaanal ko waaye ku sopp mam Seydil Hadji Malick defal ni ñu màggal ko وقد باق حر الشمس نحو تبرد ni Serigne Aline Gueye mu ni Seydil Hadji Malick ci biir suuf ren ji ku sot sa xalima samp ko ci daa bind te bindoo ci loolu sa mbind sànku na ودان كاطل عيلا ببرقة ثمدي لخولة مقتص فيها بكيف مدي وما قول لا إله والرباب وفرتنا وما قول هندين بل حصل ما ومهددي ودع ذكرى أيام السبا والليالي ودع عنك تذكار المغالي كرادي إني سرج ألين كي muy kuy bind bindal ci maam Seydil Hadji Malick ngi ci biir ba mel tey walakin tafakkar kayfa dijatu seydi la daradi wal khatbu ashghalan dadi walakin tafakkar كيف ضجعت جهبذين حبيبين خليل الكل برين ومرشدي ولكن تفكر كيف ضجعت من مضى إلى رحمة المولى الوفي المتغمد يوني سيرين ألين جي mu ne kuy bind bindal ci borom parasol bii nga xam ni ni bidiw étoile polaire di gindee mool bi ci géej ba mu teeri tefes incha allah noonu gindee jullit ba ñu teeri aljanna ni weeru badar di leerale guddi noonu la leerale diine moo tax Serigne Habib Sarr yàlla na yàlla yokk leeram daan na wax xam-xamu maam Seydi El Hadji Malick gàññ ak naññ nee na gàññ leer na naññ walakin tafakkar kayfa dijaatum muhtadin ka najmi dujaa bal badrihal mutawaqidi ñu ni Serigne Aline Gueye mu ne kuy bind bindal ci maam Maodo mi nga xam ni nee na yonent bi mën na maa gën a gudd tànk mën na maa gën yaatule tànk waaye fu mu teggee tànkam xam leen ni man Malick Fawad bi dinaa fa teg sama tànk bi duma rax sunnam benn yoon eh xam ngeen ni raxul sunna yonent bi de walakin tafakkar kayfa bid'atun muktafan bi sunnatal hadi nabi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ni Serigne Aline Gueye mu ne kuy bind bindal ci borom parasol bii nga xam ni ku iñaanul soxorul xam ni moo doon secret Cheikh na Tidiane Chérif wesaare salaatul fatihim bi ci réew mi ba lugg na jaww Sénégal sukuraat la jëlatu fi kenn da nelaw ba dem rek lahoo faydun yafiidu amima kullin fama baqiyal kiraamu wala li amu ولكن تفكر كيف بدعة وارث أبا الفيض قل بول أولياء ابن محمد moo tax talaata 27 juin 1922 ci la seen maam Seydi El Hadji Malick dem barzax ne nis tuut tiwaawan fees del boo sànnee mbatt mu takk magasin yi tëj seeni bunt comme maam dabax jak bésu borom daara ji fa xasat fi jaajul arabi lam tara furjatan taqul ala indi sabi ويل لورد وغلقت الأبواب دون تجارة وقد أرجف الأقوام من غيب سيده ne ñay jooya ngay jooy ñay wasifa ngay wasifa ñay jàng alquran ñu ngay jàng alquran tiwaawoon gëndaloo fa kaana tisaalu daakiriina tisaalum bukaa ana ladaa kulli tariqi wa maqaadi xel yépp gëlëm wa udhichatil albaabu kaada tasaddat sudur ahaliya bi kulli tanawudi innistut ñu romb maak ñetti njaq bee ñu def ca ndoxum kese bee ñu def ca ndoxum goowe bee ñu def ca ndoxum déem ñu ni ñu ngi bëgg a sang maam Seyd Al Malik ne may xuloog sangkat yi naan leen kii ngeen bëgg a tuur ñetti njaq yi moo gën a fees géej ndax géej mënta paase tooyal te fes te xam-xam bi ci dënnu Maodo baaw na ba jël Atlantique tooyal Amérique baaw na ba jël tooyal Europe baaw na ba jël mer tooyal Arabie et kii a fees yéeg su ko ñetti njëkk dee sang matière a tax wamina jabin taxsiluwul kulla kullatun wa fi sadri البحر adam mu musibi nee ñu sang mam Maodo teg ci jàkk ne ma jàpp ci bant bi jooy naan bant bi kii tëdd ci sa kaw bu la damul daa jox yoon cëram waaye muñ gi ci dëmm bi ku ko pëseek montagne bi mu gën ko diis e li gën a diis montagne bu damul bant kay matière a tax wa min ajabin xablul axilla bi naasi wa maxmalu sabran wisanun bi jalmadi seen maam Serigne kër a jiitu ànd ak seen maam Cheikh El Hadji Mansour ak sunu maam Dabbaax Malick ne ñu teg mam Maodo ca bopp jàkka ja ne ñu teg mam Maodo ca bopp jàkka ja mu ni mam Mor Xuja si kaay Ahmadou lu jur mook Ousmane mi jur mam Maodo mi ñoo bokk ndey ak bàyyi kon kaay jullee cheikh alxaaja malik nee ñu jullee cheikh alxaaja malik def ci bameel sëriñ Aliou ne ma dem dem mënumaa dem samay tànk jaxasoo ne ma ni bàmmeelu bàyyi cheikh alxaaji mansuur lan ngay wax waa muxtafin waay fa waajaban min axsani durri xustawoo ضريح أبي المنصور مغياث مكمدي تغيبه عنا وفينا تفجع ترى صدفا في يتيم الزبرجدي كي تد سليمان أمرين دفلني كمامي سيد الجميل muusawiyum bi najdatin def leen nii ci maami borom daara yi xaliliyu diinin def leen nii ci maami Serigne Cheikh Tidiane si sunniyun li muhammadi def leen nii ci maami Serigne Abdoul Aziz Al Amin e seen maam Maodo Serigne Cheikh nee na ñaan dañ koy dimbali Serigne Cheikh nee na koy dimbali sunu maam Maodo li mu ñaan da koo jëfe lana min danasil harami wa shubhatin mujibatil malami bàyyi fële yàpp bàyyi fële soow ñu ni ko ndax daa xaram mu ni dagan na sax waaye nag weeg xar meeg bëy wi laa wóoluwul ñu ruur tollub jàmbur mbaa ñu laal soqub jàmbur ak ja topp leen moo tax ma faf leen fi teg waaye def leen nii ci maami Serigne Moustapha Sy xaalisun لا يقدر الحمل ذرة من ضيمي عن للأحباء وحسدي